jërëjëf euh, Abdoulaye Diop euh, passe partout jërëjëf euh, Yacine Pouy digital jërë ngeen jëf RFM 94 point 0 la rajo leader waaye su suñuy site bokk na ci www point rfm point sn page Facebook bi RFM l'officiel la rajo télé la ko xale yi woowee seen beneen numéro journal des faits divers. fe de. non non pas fekk na de. non natt bu jeexee nit bu euh, comme par exemple ñaari jabar yi aaye bu ñu kii dañ naan maa fégal maa fégal mais natt bu jeex am na baat bu am na nu ñu koy woowee waaye professeur Massamba ma waaye ana kii tati euh, natt bi dafa fer feeg fe noonu la de mm, genre yooyu la rek yooyu la daal mooy natt bu jeex rek fii daal ku fi gàgg moom kenn mënu fee gàgganti kenn yéen ñi toog foofu man seen man yéen man seen utilité toog foofu laa bëgg a xam man utilité bi li tax ngeen toog foofu Ndiaye maa ngi lay ziar maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax mi ngi am jàmm waaw maa ngi sant. ngeen defal coono wax ju bari ji la gisoo ma sànq ci studio bi may. bëgg rey sama bopp dëgg la wax fii da ngaa mar mar wax ju bari ci laa du ma ñaari partenaire yi nga eh, dama ciy dégg gan gu bees goo xamante ne ji mhm. maa ngi wax Adja Assou ndax euh, voilà mi ngi nii muy euh, saabu Fanico mhm. dañ koy teral saabu Fanico di saabu saabu la boo xamante ne ji dafa gaaw a xëpp mhm. loolu moom ñëpp xam nañ ko ñi koy faral di jëfandikoo lu yàgg la ci réew mi nag mais également di xeeñ lu neex Euh, am na bu mag am na bu ndaw saabu fanikoo nañu ko xàmmee. Mhm. Euh, muy bu dee dangay ngay fóot wala maanaam fépp foo soxla ceet gu ànd ak xeet bu neex. Euh, gërëm ñi nga xamante ne ji ñooy waa Green Card Sénégal. Mhm. Green Card Sénégal dix ans ñu nekk ci réew mi di dimbali ay nit ñuy tenter seen chance di gagner Green Card mën a dem États-Unis d'Amérique nekk fa en toute légalité euh, di ñëw euh, ak di dem nu mu leen neexee mu di mbir mu wóor woo xamante ne ji ñoo lay gunge boo ca gagné ba dugal ci avion bi boo bëggee ay leeral xam ñu koy doxalee loterie beeg chance dag noo koy tenter ak foo leen mën a fekk da nga leen di woo ci 77 027 ma nga ñu def fële ca monument obélisque am nañu benn ca rond point JVC am nañu stand ca rond point Abbas Ndao mais également it am na yeneen yoo xamante ne ji ñu ngi koy bëgg a indil waa réew mi hmm. établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère. Hmm. nga xamante ne ji gaamu vite fait bii di noppal nit ñi ci nawet bi ñoom ñoo ko indi. Hmm. ndax pomp boo xam ne dalay tàggale ak mbóot ak i ak ak ak weñ. mais yamuñu ci indi cuuraay bant bii di vite fait nga xamante ne ji yàgg na ci réew mi vite fait euh, foo ko taal yoo du fa jege ba noppi mu bàyyi la fa ko taal xet gu neex. Hmm. loolu mooy cuuraay bant vite fait ñu dolli ci benn crème boo xam ne ñiñ koy digal ñi ko tax a jóg mooy ñi xam ne tàngaay da leen di sonal ñu yéeg seen kaw terrasse nekk ci biti féexlu yooyu duñ leen may fu ñu féexloo nañu jël crème vite fait diw ci seen yaram rek fu leen neex mën nañoo tëdd nelaw ba yàndoor bu ñu xëy dem sangu ju doxi seen i am na solo hmm. surtout ak fan eh, ni gunóor yi mel ci réew. man biik ak bërki biik li ma jot ci ay nit yoo xam ne ñu ngi naan ma dara yemul ak vite fait bëri na lool lool lool. Hmm. ak gunóor yi eh, ne ci réew mi surtout gunóor yi ne ci réew mi nga xamante ne ji mais gunóor yooyu baan fu ñu jógee. gunóor fi merci beaucoup fekk na ku la ko wax. Ah, man man man deew dama namp olof. <laughs> Ah. <laughs> en tout cas gars yi ñu ngi koy commentaire fii ci euh, Facebook bi suñu page bi. non baat baa ma réer rek. Mm-hmm. natt bi mm-hmm. fekk na. fekk na fekk na waaw na maa ngi nuyu waa Guinée. di leen ñaanal jàmm yàlla na fa jàmm wàcc. amiin yaa sama xarit bu bees bi Seydou Delen Diallo. amiin yaa rabbi sama xarit la. amiin benn bakkan la. amiin yaa ban da gis nit ñi bu ñu nuyoon nuyoonte dañ naan euh, sa ay kenn gën la gis ay lu bees ak yooyu ngeen waxante lu bees ban lu bees <laughs> xam nga lu bees ban tey lu bees xam nga xam nga xam nga njaay dafay wax xaw ma ñetteel yeeg ñeenteel yi coo topp ko ci ci ci ci weekend bi déw man man ma ne ma mbind sax dama woo. waaw ma ne ko Mbay Ndiaye est-ce que est-ce que yaay turandoo suñu mbañagu démb ma. waaw mbañagu démb bi. Mhm. Mbajang buy génn man nag tudduma kenn wax dëgg yàlla nja abaa man nit ñi dañ maa yëpp tudduma mm-hmm. kenn tudduma benn mariage xam nga euh, dama ne daal ci mariage yu bees ñu takk mm-hmm. am na ci koo xam ne joxewul turam turam dëgg mbañik la sant njaay waaw mm-hmm. mariage ba neex na lool waaye tamit euh, ci waru ga suñ ko coppoon compoon tuuti jàppale Pape Séeréer mi ci kaso bi dina baax kan si ca yooyu ma lay wax mariage bi waaw waaw jàppale ci Pape Séeréer. Pape Sé Pape Ndiaye la ñu naan ko Pape Séeréer. mariage su jàmbur ngay jël. ay lu ci yi kenn ka frère am daanee kaso. ah mooy Pape Séeréer. mooy frère am Mbagnick ñoo bokk ndey ak baay. ku ci Mbagnick ji. ah man daal man daal tudduma kenn. ok ok man daal tudduma benn mariage. mais pas forcément sax kay la mu dépensé ca mariage ba. waaw da cee waroon jël jàppale frère am. da koy neex rek mu def ko nag. ah ñoo bokk ndey baay de. nañu bokk géeño guñ jóge. waaw. da koy neex rek mu def. waaw na ko neex bokk waaw na ko neex. ay waay loolu dina dina neex. mer le frère ba def ba dugg kaso. dina neex meer noppale trop. ban yu mi li nga xam nga. kuy kookooti. mer noppale. moo ci kanati. mooy seen yaay. mer noppale. baan waxal wax ji ku takk sëy bi kan la takk man tur la joxe ak ban tur la dëgg déedéet non wax day man attends dem xala xam déedéet man journaliste la <laughs> journaliste denrée koy dundal mooy information eh, yow kii dem ba pare man ku ma yóbbu bañ te yegg na <laughs> man daal donc fii ko cax benn bennal ndugg na fii dama xam ne rek benn jour nee naa ko yow wër buntu àjjana mooy tax ku yéex a dugg àjjana démb kay nga ko wax ban bu lax benn affaire day toog di xëcc mel na kuy tàggee ah, ku deew day xëcc ka teg ak teg wax ñu li xew xam nga man damaa weex du ko damay nan daal foofu laa yem man daal en na mu wax ni noonu tudd tudd ko Manick Ndiaye la tudd yaayam tudd soo demee trondoo minus Manick Ndiaye la yaayam tudd na am na rakkam ji ci kaso bi te tudd naan ñaan ko Pape Séeréer te tudd Pape Ndiaye mère mhm. noppalee seen yaay <laughs> ay reelu na nag mais du ay ree non non ay ree mais euh, dangaa xam loo xam ni man xaw ma ko waaw njaay mii xamu ko. nga bañ ne dooñ ci leeral lu dul di ñu teg ci ay code. Ah, man daal fa laa mën a damaa weex dunk. ok damaa weex dunk. damaa weex dunk. kon nag kon euh, ñaanal mais noppalu ki nga xam ni moo maye mi yu bari ci kaw mu neex ko na dimbali je pense que nag mu neex ko lay dimbali frère hmm. mais dimbali yaay obligation la moom. Ah, waaw waaw ah, ça c'est une obligation. dimbali yaay moom obligation la. mais mu dimbali li ñu doon waxtaan nag c'est privé mais mhm. ba loolu bokkut ak li nga xam ne moom la ñu kii pour ñu réagir wax ci affaire yi même su fekkee gis nañ ni opération opérateur euh, yi nga xam ne ñoo yor wàllum téléphone ñu bari ñu ngi góorgóorlu ci seen communication ci wàllum euh, arnaque yeeg ñoom seen mhm. mais war gën war nañ ci gën a góorgóorlu askan wi tamit gën a yeewu bàyyi seen données personnelles yi ñuy yi ñuy yi ñuy saam ci eppi mhm. parce que tey jii ngay jékki-jékki nit wala ne Mouhamed yi nga ne ko wuyu mun la yaa dëkk tel quartier ñu ngi ko waaw sa numéro nangam ak nga waaw fayegoo sa facture ki la woo noonu nu mu def ba xam loolu hmm. nan la def ba xam ko fu mu jëlee yooyu information. lu jaaxal nañ la donc ay données personnelles la yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo yor wàllum téléphone ci réew mi war nañ di gën a góorgóorlu di protéger ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi. femme bi looloo ko daal biiroom la toog jékki-jékki ñu woo ko di ko wax ay affaire link ko ay am doomu ya daaj armal ba di wër xaalis ca biir kër ga. fekk na ku leen woo di leen waaw déglul. yu ma dund des faits réels yoo xam ne yàgg naa ko dégg c'est pas que gëmuma ko woon mais bi ma ko dundee laa gën a xam ne am na toog sama bureau je reçois un d'un appel benn numéro Tigo moo ma woo le gars quand il automatiquement dafa jaar sama tur madame Diou ma ne ko oui automatiquement ma dégg opérateur bi ne ki ngay wax ki ngay woo mi ngi jox ko keneen ne quittez pas comme xaw ma numéro bi ma cons ma daal di observer un moment d'arrêt bi ma ma daal di xaar bi xaw a yàgg quelque secondes ma daal di coupé ndax j'étais dans le travail maa ngi liggéey bi ma raccroché le gars a encore appelé bi mu woote waatee mu ne ma madame diw encore ma ne ko oui mu ne ma ñu daal opérateur bi jëlaat ne quittez pas ki ngay woo mi ngi ko keneen bi mu defee deux fois pour man yaa a quelqu'un qui veut dans le cadre du travail m'appeler et qui n'y parvient pas ma daal ko yónnee un SMS en lui disant que si vous ne pouvez pas m'appeler envoyez-moi un texto yónneewuma texto mu woote waat deux trois fois mu def la même chose la troisième fois mu mu ne ma euh, madame diw ma ne ko oui j'espère que nous vous dérangeons pas ma ne ko effectivement vous me dérangez vous me dérangez parce que je travaille et depuis tout à l'heure vous ne m'appelez et vous ne me dites rien daal di raccroché ba pare daal di bloqué nag j'ai continué naturellement mon travail ndekete moment boobu ils ont rétabli ils ont fait un appel à trois ak sama waa kër sama fixe nag encore xaw ma fu ñu jëlee sama fixe lu man Sonatel laa kon abonné ma léegi bi ñu jotee sama waa kër noonu sama waa kër nee nañ man la ñu dégg ma naan leen xool leen ci sama sac à main yi euh, enveloppe bu xaalis ngeen génne ko parce que dama fàtte fay fak leen di woowaat ngeen wax leen numéro bi ngeen ma koy yónnee xale yi wër wër wër ba sonn ñu rappelé waat leen tut maay wax nee nañ maay wax de te boobu yëguma ñu ne xale yi gisu leen ko ñu ne déedéet ñu ne xale yi man nee nañ man maay wax dajji leen armoire bi ngeen seet ko ci biir armoire bi kon enveloppe bu xaalis ba xale yi dajjati uti ku dajji sama armoine ñu dajj ku wër jaaxase sama bagage yëpp gisuñu ko ñu rappelé waat leen toujours nee nañ man la ñu dégg soi-disant may wax ñu ne leen gisu leen ko ñu ne déedéet mu ne mu ne nee na ma ne leen dem leen kon ci boutiquier bi boutiquier bi jox leen bi ñu demee heureusement pour moi sax boutiquier bi ne leen dama doon dama doon doog a joxe sama versement yi am ne leen maman awma dama léegi nee na ma ne leen ne leen ko lu mu yor sama doom bi nag commencé ñaaw njott daal ne ko nekk maman nee ne leen maman nañu woo après ñu raccroché il était 13h 13h30 te man comme d'habitude à 13h h à la maison pour xool xale yi ndax añ nañoo yeewu nañ ak tout se passe bien à la maison naturellement quand sur le fixe man toujours si fixe bi laay woote ndax xale yi dañuy sànni seen téléphone le fixe était occupé ma woo sama benn doom bi ci téléphone am mu décroché ma ne leen ma ne ko yéen tout le temps da ngeen di décroché fixe bi di ko bàyyi noonu raccroché leen ko a jot suba tey mënuma leen jot ma keneen ki naan ko bu ko raccroché waa Sonatel nee nañ bu ñu ko raccroché ma ne ko mais waa Sonatel de quel droit ils vous disent bu leen ko raccroché alors que man woowuma leen le téléphone n'est pas en dérangement qu'est-ce qu'ils sur ça sama doom bu mag bi jël ne maman sànq ba te yow yaa ngi wax ak ñun téléphone ak kii ma nekk ci lan mu ne yow yaa ne nañ seet sa saak yi xaalis nañ dajji sa armoire sa armoire dajji nañ ko daal di may tegal fay yëpp dem nañ ci boutique bi def nañ lii ne gisuñu maa ngi naroon dem si sa sama tata diw sama benn tante bu ñu dëkkal pour ma jox ma pour ma yónnee leen ko daal di may jox numéro yi ñu leen jox yëpp ma ni leen il n'en est absolument rien dégg nga dégg nga femme bi. waa seen xaalis demul. noo xaalis ba jotul dem. parce que maire bi dafa teel a comprendre parce que xam nga tey jii nga liggéey. xëy suba huit génn sa kër ba dix huit heures woote woo sa kër xamoo la fa xew mais da ci am ay mère de famille yoo xam ne su midi jotee wala treize heures dañ tout le temps dañuy woote ci kër gi di laajte la fa xew hmm. loolu moo xaw a sauvé euh, euh, xale yi déglu lam ci topp la scène s'est passée comme ça aujourd'hui man yàllaa si def sutura parce que fi ñu seet yëpp bu ñu fa gisoon xaalis bi dinañ jël sama xaalis mieux encore su doon bijou lañ ko ay bijou en or lañ leen laaj dajji nañ sama armoire te sama boîte à bijou bijou yu may takk tous les jours mi ngi ma tegoon foofu naroon nañ ko gis jox leen ko yàlla moo ci def sutura man nag waxu arnaqueur yi waxaguma ko monsieur man waxu Sonatel laay wax parce que man abonné Sonatel laa c'est Sonatel aujourd'hui qui a mes données personnelles ñoom contrat bi ma signé ñoom ils ont l'obligation de aujourd'hui de sécuriser mes données personnelles chose qu'ils ne ont pas faite Sonatel nous nous tous nous savons qu'il travaille avec des prestataires prestataires yooyu la ñuy jox suñu ay données ñuy ñëw suñu kër di ñu installé suñu téléphone wala di intervenir ci ñun prestataires yooyu aujourd'hui ñun xamuñu leen suñu yoon nekkuñ ci yoon parce que Sonatel la ñu xam ñoom Sonatel ñoo war a def de telle sorte que ñoo dañuy sécuriser ñoom suñuy données personnelles ba n'importe qui bañ ci am accès arnaqueurs yi dëgg la dañu leen war a jàpp mais tey Sonatel bu defoon li mu war a def sécuriser ñu sécuriser suñuy données ñun abonné yi kon am yoon jël voie bi ñu jël parce que ça c'est récurrent je ne vous cache pas nag parce que man ci dëkk bi laa dëkk je connais mes droits je suis partie au niveau de la brigade de cybercriminalité j'ai porté plainte contre X et j'ai porté plainte contre la Sonatel parce que man xamuma prestataire sol sama yoon nekk Sonatel moo jël samay données kon moo ma waroon protéger léegi nag man je vous ai saisi parce que comme yéen vous êtes des porteurs de moralement et qu'aujourd'hui si je ne le dis pas demain keneen ku mu dal ba ñu jël ci doomam parce que l'affaire est grave on parle de d'argent et de de buge wala leneen loolu amul importance parce que nit ki moo koy liggéey mais suy nee woon sama doom nag bu jëloon sama doom yóbbu ko muy ku mag ki di comme ku ndaw ki parce que ni ñu rétablir la confiance entre mm, ñoo euh, sama doom yi ak ñoom parce que ñoom feeñu ñu si sama voix la ñu jël xaw ma dañ ko déformé xaw ma nu mu ci mënti demee loolu mënoon nañ jël sax nit ki ak i noppam ni ko demal dugg ci oto sàngam loolu yëpp mënoon na nekk aujourd'hui ka ngeen dimbali ñu jàppale ñu ci il faut que ça ça dëkk bi neexatul mais c'était juste benn citoyenne bu ñu bëggoon arnaquer je me suis senti je suis sax lésée moralement te bëgguma li ma dal mu dal keneen ak keneen ak keneen parce que l'affaire est grave il faut qu'il protège nos données man joxuma ma sàmba ma paate sama numéro fixe sama yaay sama papa sax xamuñu ko parce que soxlañu ko sama téléphone sama portable laa lay laay ñoom mais sœurs pareil sama doom yi sax tey boo leen laajoon le numéro ils ne les connaissent pas man mi personnellement fixe maison sax laa enregistre donc ku woote ci sama fixe ak wax sama tur ak sama sant madame diw te noonu laa tudd ñooñu fu ñu jëlee samay information pudd ci Sonatel sama numéro portable man abonné orange laa fu ñu jëlee sama numéro mënuñu xanaa mënuñu tâtonner bu ñu wax le tâtonnement loolu c'est trop facile nit mënul tâtonner tâtonner ba am sama numéro portable mu juste corrélé ak sama numéro fixe corrélé ak sama noo mënul nekk il faut qu'il nous protège trop c'est trop j'ai porté plainte nag te je vais suivre l'affaire je vous remercie d'avance merci beaucoup. en tout cas en tout cas wax na lu sensible wax na loo xam ne ñun ñëpp am nañ ci kaa man mi yow am naa ci bis boo xam ni et dafa wax loo xam ni lu ñu war a seetlu la hmm. nit ki mën na essayer di mu daj benn hmm. mais essayer ndoo yëpp mën koo dajandoo quand même xam sa tur xam sa tur xam sa adresse xam sa numéro portable xam sa numéro xam fi nga dëkk loolu moom war nañ ko xoolaat am na lu senn war nañu xool fu mu seen quand même c'est un phénomène qui est am na ko ma envoyé message ne def nañ ko doomam tuuba uh-huh. cent soixante quinze mille la jël uh-huh. dem fayee ji ko. Uh-huh. moom waa ji ba léegi wala moom ndaw si xaw ma comme ci doon en tout cas bindul message bi. Uh-huh. mi ngi wéy di sensibiliser xale yi ci au-delà de sensibilisation bi. Uh-huh. Euh, cin fukkul bënnul. yàpp fa newoon ni mes foofu jugee nañu laaj na fa nekk. Mhm. fii laa toog di animé. gis nga bu ñu bàyyi waa ji sama kër la woote Ndiaye ne ko Aba mu ngi anime nii ñu ngi koy woo mënuñu ko jot. dangeen ngeen war a fay facture nangam ak sàngam man sama noo Aba no stress nekku ci de. Mhm. man ci sama tur vraiment ci nekk. ci nekk sama tur dëgg ci nekk. ñu ci nekk Babacar Camara ci nekk. mu mën a xam sama tur mën a xam ni man la xam ni maa ngi animé woote sama kër jot sama soxna ba fayee ko ko cinquante mille kooku jël cinquante six mille fayee ko facture euh, boo xam ni facture téléphone la euh, fu mu amee information yëpp li femme bi wax ni euh, lu am solo la li ma la wax li femme lu am solo la maanaam ñi ñuy liggéeyloo ci seen biir ba ñu xam circuit bi xam yoon wi ñu leen di bàyyiwaat déedéet ma ñoom la de mais man ku ma c'est-à-dire cinquante damay gëm ne ñoom la. Hmm. mais comme da loo xamante ne ji maîtriser woo ko. Hmm. ñoom ñi ko. Hmm. xam nga yamu rek ci defi spot publicitaire bu leen nit woowee di leen arnaqué gañ nga lii bu ci wax déedéet. mais baan yow bu la nit woowee ne la Mamadou Ndoye baan sa numéro téléphone nangam sangam sa facture numéro nangam mais da nga naan kii nii. ba pare la ca facture ba la lay wax de. la ca facture ba la lay wax kooku. nu mu ba xam la ca facture xool nu ñu ko lijjantee. te opérateur yëpp la ñoom ñëpp la ni muy dalee ñii noonu lay dalee ñii te ñi ni information yu wér yu te wóor la lay jox donc opérateur yi ci dëkk bi nañuy protéger seen euh, seen seen clients yi. j'ai été victime j'ai été. victime rek ngi mel ni tout le monde. waaw donc Sonatel il est temps. ak yeneen entreprise yu mel ni ñoom xam ni am na ay brebis galeuses yoo xam ne ñu ngi seen biir di yàq seen image. ak seen crédibilité nañu toog xoolaat. ñi yor seen cellule de communication nañu génn. waaw wax ci lu ñu nekk ba pare ñu segg seggaat prestataires yi nga xam ne ñoom la am. parce que histoire yi ku ci nekk ci biir moo xam lii mën ko génne mën di arnaqué askan wi nañ ci bàyyi wala léegi nag leneen lu koy faj naan l'immédiat mooy na askan wi yeewu. askan wi nañu yeewu bu la nit woowee ne la maa ngi wax ak diw nee ko daaj dafa jàpp nee ko na bàyyi ba mu pare woo ma. te de gis nga. téléphone buñ coupé du la tax a dee. xam nga lii lu koy buñ ko waree coupé dañ koy coupé yéen ñi nekk ci kër yi ku leen woo ne la sa patron wala sa yaay wala sa maam moo ne naa la woo nee ko bàyyil ba mu libre mu woo ma ah, am na loo xamante ne ji même lu ci sonatel góorgóorlu góorgóorlu te baan ñun ñi yeewu ah, wax dëgg yàlla ah, waxal waxal kaw waxal lool de am na loo xamante ne ji comme ñoom bu fekkee système bi da leen rëcc wala am na lu ñu mënut a contrôler mais ñun nañu contrôler suñu bopp beneen bi mooy njaay am déet njaay waaw dëkk bi lu ci bari dañ koy sous-traité sous-traitance bi tamit ca waaw mais xam nga yooyu moom système la ñu liggéeyee c'est-à-dire du yii mooy tax ñu bàyyi ko bu dee moo leen di arrangé mais man daal li ma la te mën la ko mooy waaw ñi ci kër yi waaw nañu yeewu xam nga tey ji su fekkee Sonatel wala ndoy ndoy baan teel dafa ne nekk ne nekk ne le te mi ngi waaj am ne ko waaju waajal gars yi waajal ma jël benn Mouhamed Ndiaye sous-traitant jox ko jox ko jox ko facture yi jël abaa jox ko tout ce qui technique man ma toog ne ñoo njaayi sous-traitance su bàyyee ci ci ci ci ci ci ci Ndoye Bane dem ci dem si ñeeg ñeneen ña doon liggéeyee dañuy yor les données. non mais dafa ñu de am na foo am nañ limite de. limite duñ am accès lépp de. non non da maanaam loolu moom dam na foo xam ne fa la ñuy yemale. ñi ñuy sous-traité loolu ñi ci biir rek ñoo koy. xam mais dañuy am say. mais dafa fu ñu yemale. xam nga tey jii soo jëlee tey jii ñii ñëw di la monter téléphone sa biir kër. waaw liggéeyuñu Sonatel. kii ñu xaar bañ ba ma ba ma indil bi ci topp maa ngi nuyu sama xarit bi Ndella Madior dégg nga. <laughs> ah du sa xarit Ndiaye. kan ci Ndella Madior ko présenté. non xaw ma ko waaw léegi. xaw ma ko de daje nañ télé ba daal émission quoi. doom ji sama xarit la xamee kontaan naa moom sama xarit la quand moom de. doom ji sama xarit la Saara. waaw man moom man moom mooy sama xarit. Ah, man Saara kontaan naa ci moom de. Hmm. jigéen moom su bëggul góor rek. Euh, ba bëgg leneen. Euh. <laughs> ah mais c'est vrai mais Ndella Madior li mu wax c'est le train qui arrive à l'heure c'est le train qui arrive à l'heure ban dis ça au cheminot ñu dem waaw ba quel ban nga xam ay train. yéen ko wax euh, yéen ko wax kat waaw d'accord ñu dem. Ah. bi ban mais loolu bañ a wax ci li Ndella Madior wax dalaa neexul. <laughs> déet man déet góor góor day bëgg jigéen jigéen day bëgg góor. jeex na lool loolu yàlla loolu yàllaa ko wax. wuy ma wuy ma. yàlla moo wax loolu. ban mais yàllaa ko wax. ban fekkee li yàlla wax àndu leen ci kay ngeen wax ne àndu leen ci yéenay xeex góor jigéen di xeex lesbienne ndee la mbaa ñu ni dafa bëgg góor ngeen nit ñi bokkoon nàpp. <laughs> waaw ban bi kan ñëpp laa ñuy. ñu wala yéen waa loolu la mu bëgg. ah te noonu su doon damaa bëgg jigéen ñëpp ŋàbb ko. mu ni damaa bëgg li ko yàlla bëgg loolu la bëgg. ay ñëwal kii kee kee policier ay ay ay foofu policier mu ni kooku daa amul njaboot am na yoo xamante ne ji. waxoo ñëpp amul njaboot waroo cee yegg. xoolal dama ni. Ah. da nga koy wax rek wala nga noppi. ñëpp ko bëgg li mu wax. li mu wax dëgg la. lu rax foofu booy. ah mais ñuy xeexe ni. yaw lañ xeex sa bopp. yow yaa ñeme ruq bu ne nga gas ko dugg fa yow kenn xeexu la yaa xeex sa bopp. ah kon li wax li yàlla wax àndu leen ci. Eh, eh, yàlla nee na. na góor ñi bëgg jigéen ñi jigéen ñi bëgg góor ñi ñu takkante suñu biir. loolu la yàlla wax. ko yàlla wax. fépp ci alxuraan. ban moo tax nga takk déedéet déglu ma kooku su su oustaz yaa ngi may dégg oustaz yi suñu ñëwee dañ la koy wax ci alxuraan wala ñu wax la ko ci arab mais loolu lu ma wax nii lu kenn mënu koo dindi lislaam la ñëpp ko war a félicité félicité d'accord léegi yàlla wax daal ngeen di weddi léegi ci xalaas baan may euh, benn waay bu tudd Fallou njaay vingt deux ah. ans la am ma nga dëkk tuubaa nee nañ dafa réer ay mbokkam mhm. wakaam nag la réere feebarul dara jotu ko du feebarul xel du feebaru yaram mhm. olof lay wax mhm. ni ko mën a xamee mooy dafa ñuul Touba la dëkk vingt deux la am Fallou Ndiaye la tudd premier octobre la réer ba léegi am na solo donc loolu la euh, Ndiaye wax nañu dem allo présidence laata émission bu mag bi di euh, comment bàyyi ma ba baan hmm. bàyyi ma wax nga li ngay wax ñëpp dégg nañ la waaw fi ñu toll nii Ndella Madior nga jël waaw mooy sama xarit tey moom nga fal ba ca kaw waaw ba suba acca <laughs> allo président de la république du président ci côté Robo Kolo Barak Sane Dakar urgence zone victoire du président de la république ci palais de la république mu résidence du président de la république bi nga xam ne mooy demeure historique situé dans le quartier Dakar plateau capitale du Sénégal construit en 1902 xam naa yàgg mu nekk clarification officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF Léopold Sédar Senghor Diatta 1960 80 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñamaat fi nu xaaran ba am kii woote ba ko jot président de la république ko kala war ko la woote salaamaaleykum Allô, bonjour. Oui, bonjour. Eh, monsieur, vous, vous, vous, allez bien Ça va bien, Gogo C'est euh, depuis, depuis, la Guinée. Alpha Condé depuis la Guinée eh, C'est Alpha depuis Guinée, oui. Ah, je, je, je, euh, président. À quoi, puis vous aider je veux, votre, président. Euh, non, le président est euh, tu peux le transmettre message Ah, bah, bah, bah c'est travail, c'est mon boulot. sont, les généraux qui dans le palais non ça là la là moom concerne pas les généraux tu as besoin du président le président est absent. mais ki ah. message tu message s'il s'il s'il vient je le voilà je je le parler parce que parce que Sénégal euh, et la Guinée c'est pas pas loin. Ah, je sais que tu parler wolof. quand quand il il faut lui dire. waaw. Ah. Euh, euh, je vois je je vu que muy jàppale ñi ngi jàppale. da da Delen Diallo da Delen Diallo moo moo moo moo combattre sur le politique. waaw. Eh, gis naa mu ko jàppale. Eh, gis naa mu ko yónnee xaalis. gis naa mu ko yónnee agaru kor. gis naa mu ko mu mu mu ko déju na pour pour mu gagné. waaye dinaa xam ne Macky Macky Macky mënu ko jàppale ba mu gagné ma. Ah. na na na jigéen na jigéen na jigéen ah, na jigéen. bu bëggee su fekkee loola. mu mu est-ce que t'as vu le gars le gars le gars le gars que j'ai boxé sur l'internet. le gars que tu as. boxé sur l'internet. ah yow de fii la ñuy sant sa hymne national ngay tàllal la ko di fecc. non non non non non c'était c'était oh, il l'a monté comme ça mais c'est ça eh, c'est tout. Eh, eh, lan yow lan moo tax je suis fier de mon pays. dama ni yow lan non écoutez écoutez il faut m'écouter. non j'ai une question. ok que que les Sénégalais demandent. on dit une question on on on ne dit pas une question on dit une question. vous les Sénégalais vous ne connaissez rien. une question. Que les, que les, Sénégalais demandent. Oui. Pourquoi tu n'acceptes pas que les plefouteux vivant au Sénégal, madame, euh, votent vote au Sénégal, faites le vote au Sénégal. Faites-le passion. Hein? Eh? Il, veut, il, veut, il veut le coiffure. Le coiffeur, c'est le métier. C'est le eh? métier. Non, pour, non, pourquoi tu ne veux pas qu'il qu qu dans les, dans les journaux, les pour suivre au Sénégal. Ah, pour, pour, pour, pour faire vote. Ouais. Donc, yow toi. non mais mais c'est un décret mensonge. C'est un décret mensonge. Mais je l'ai pas je l'ai pas aidé hein. Hmm. Moi je vois que c'est Macky Sall qui l'a qui l'a aidé à, à, à, pour pour qu'il pour qu'il m'agaille. Hmm. Macky Sall est en hmm. je pas peur de lui hein. J'ai pas peur de lui. Oui, la fois passée on s'est disputé moi et lui. S'il veut s'il s'il veut on peut faire la boxe On peut organiser une ring. Là. Moi je moi, je je suis pas je de lui hein. Je suis pas peur de lui oui. dis-lui de, de, de, da se mettre à l'écart. ko yoonam ne ko ci bii. Hmm. na toppatoo na toppatoo dëkkam. Hmm. ma gis li mu def yëpp. di hmm. di jàppale Jalle Diallo di di di ko di ko di ko di ko conseiller loolu loolu taxul mu gaañ ma. taxul mu gaañ waaw. léegi kon yow looy tiit yow. man kan kan ma tiit. man a gaynde la man a gaynde la amul boo xoolee suma bët bi bët bi ni mu amee ndox ci nga xam ne man ragaluma. yow doo bàyyi doo bàyyi noppalu bàyyi. ga bàyyi quoi nguur dafa neex de nguur nguur nguur dafa neex. je peux pas léger bien ba naa tey mais nguur dafa neex. ah loolu la gënal daal yow. je préfère mourir que léger léger l'état. ah tu préfères Guinée c'est moi qui Guinée c'est moi je connais bien Guinée. je connais je connais le le le politique Guinée. waaw Guinée. c'est moi qui peux l'aider c'est moi qui peux l'aider. mais Guinée ne t'aime pas. qui t'a dit ça qui t'a dit ça. les Guinéens. et eh, voilà on vous a gonflé. ah. qui qui vous a dit ça. les Guinéens. les Guinéens. quel Guinéen t'a dit ça. beaucoup de Guinéens wandoor de coco coiffeur wandoor de euh, tàngal mante et euh, gros petit cola. mais tu tu dis les Guinéens qui qui au Sénégal. oui euh, ils sont pas des Guinéens. Hum. Ils pas des Guinéens, ils sont ils sont des, ils sont pas des Guinéens. Les vrais les Ay, kon, mais mais